incha allah donc euh, maa leen bàyyi fii loolu rek moo newoon opération rëbb dëmm bi ah di déglu Ousmane sunko di déglu tamit ay partisans am ci li nga xam ni ñoom buñ ci bëggee lu leen leer mun naa leen ko yónnee ñoom ñëpp dossier bu ma yoru lépp ci usman mun naa leen ko yónnee déglu dama ne waa Pastef Ousmane ak ay ñoñam maa ngi ouvert ci ñoom buñ soxlaa ma yónnee leen lépp comme nu ma leen ko yàgg defe ma yónnee leen lépp foofu daal laa yem ci tey di leen jox rendez-vous incha allah très très très prochainement man nag du ma tontoon teg yenn gone yi lu leen neex wax leen de toute façon on n'arrête pas la mer avec ses bras xam-xam ni kuy xeex ak pouvoir du ay benn nit ñaari nit bu naan yow lii nga ak yow lan la moom moo koy kuy songu Macky kuy songu ay waa këram kuy songu ay lu day ni pouvoir boo ko faalewul benn nit bu nekk ci internet wala ñaari la noo waxoo dëgg ak yooyu non non non dañuy tuuti sama kanam damay fël jàll incha allah dëggu leen di dama ne doomu aadama nekk fi ku ma mun a téye ci sama dëgg gii ma ne doomu aadama nekk fi ku ma mun a détourné ci dëgg gi ma ne doomu aadama ak boo mun a doon nga bëgg wala nga bañ barki alquran laawaat barki alquranul kitaab yi benn doomu aadama munuma arrêté benn doomu aadama mënuma détourné benn doomu aadama mënuma wax ba ma changé kooku clair ku ma sukk jur sax mënu ko donc amul benn doomu aadama bu mun a wax lu mu mun a dugg wala loo xam ni danaa toog di ci xalaat man quitte avec ma conscience yàlla moo tax may def te yàlla rek lu waay neex wax on s'en fout on s'en fout éperdument donc je parle avec Ousmane Sonko avec tout le respect que je te avec tout le respect que je vous dois sincèrement li ma am ci firnde ci vidéo ci photo ci ojo ba ci facture envoi d'argent ba ci message Ousmane dina comprendre li ma koy wax lépp tegu na ci samay loxo et si je parlerai je parlerai au nom du peuple sénégalais je parlerai au nom de la vérité d'Allah je parlerai au nom de ma nation, au nom des martyrs, je parlerai au nom de la vérité absolue, de la vérité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. te incha allah buñ ci jotee dinaa ko def mais pour l'instant fii laa yem ak yéen parce que sama xol neexut gisuma lu ma neex dajuma ci lu ma neex yoruma tamit loo xam ne ba dama koy xool sama xol sedd sànq yor naa loo xam ni di ko xool di ko xool di ko xool bay jooy barke alxuraan yor naa loo xam ne téye naa ko sànq nii même pas une de temps nii di ko xool di ko xool di ko xool sama xel mi di voyager billahi maanaam mais lan moo waral lii la kii kan la doon yónnee lii lan moo tax mu def lii lan moo tax dama ko xalaata xalaat ba samay rongoñ di toq ndax xol bi ma am ci waa ndax yéene bi ma am ci waa ndax yëg-yëg bi ma am ci waa ndax mbëkkeel bi ma am ci waa ji loolu it moo ma daloon ca bi nga xam ni gëñ na wax sentiment ba ma daloon ca bañ naan Ousmane Sonko dafa dem Sweet Beauté avant moo génn ña nekkoon nekkaloon man leen Ousmane Sonko du teg tànk Sweet Beauté ba mu ñëwee nee na dem na Sweet Beauté man nangul ko loolu ñu ne dafa violé mun ba tey suñ doon yàlla tey barke alxuraan maa waat ni Ousmane Sonko violé wul Adji Sarr foofu laa yam Ousmane Sonko violewul wul Adji voilà léegi nag comme ni ñu koy waxee ubbi naa affaire yi ku nekk waxal lu la neex man yàlla rek moo tax may wax te kenn mënul wax lu may arrière loo lu may jëm dawloo wala xoolal waxtu bu jotaatee fu nekk nii sama téléphone yaa ngi mi ngi dox du ma jël nag ñeneen ñu ma xamul waaye daal xam naa ne staff Ousmane Sonko ñoom ñëpp yor naa leen seen numéro ñoom ñëpp yor nañ samay contact bés bu ñu ma soxlaa bu ñu ma woowee <laughs> dinaa ci wax ak ñoom ñoom ñoom nday mbiliki te bu ñu waxee dinañ xam man xam naa léegi nag lu si des moom y pas de problème man dëgg moom a ñor dëgg dama ne képp kuy dugg ci état bi képp kuy aspirer à être un dirigeant képp ku nekk ci nguur képp kuy dox ci nekk ci nguur dama ne man dinaa la defal opération rëbb dëmm opération rëbb dëmm nekkuma ci c'est sa vie privée man ñi may wax ñëpp c'est le samedi c'est les c'est la vie privée de nos de nos autorités c'est la vie privée de ceux qui aspirent à diriger ce pays donc c'est mon concept ñëpp dañ fi jaar chaque jour ma wax Bougane Gueye Dany c'est sa vie privée chaque jour ma wax Macky Sall c'est sa vie privée chaque jour ma wax ñeneen ñi nekk ci nguur gi c'est leur vie privée lee samedi sa opération rëbb dëmm c'est background check la man yor naa ay bagage yiñ ma indil yu doy waar ci sama waaji ji ci sama waa ji nga xam ni defal goral naa ko yendal naa ko fanal naa ko fanaanal naa ko woy naa ko yuuxu naa ko tagg naa ko lépp lu ñuy defal gor defal naa ko ko goral naa ko goreel naa ko xéel naa ko gontal naa ko waxal naa ko wayal naa ko xeexal naa ko kaasal naa ko génne naa ko ba génn ko fu sori sax fu sori donc kooku moo ñëwaat taxaw wax ne man gis naa lii daj naa lii loolu nag balaa ñu caa yegg noonu ya di ñu xamal wala di gis mun na yàq lu bare bare bare bare bare donc balaa ñoo yegg foofu ah voilà fii laa yem ak yéen one love sama guys euh, à bientôt incha allah peace and I'm out